wo a yeewu na Nafi waxal Mouhamed lu xew si kër gi si kër gi lay yam. Euh. ce qui se passe à Sen TV reste à Sen TV. bii ah, nag Mouhamed. xeewul seen TV si te Alioune Sow la baax na baax na Nafissatou Dieye tey nag on va parler euh, ci don mouton yi nga xamante ne moom la waa Israël di def au kër du social pour renforcer euh, seen lien yu ñu am ak waa Sénégal xam nga Mohamed waa Israël xam nga boo waxee Israël rek euh, dafay am foo leen di catalogué ndax ñoom ñëpp xeex lañ leen xamee mais baax na aussi ñu xool ci seen côté humanisme bu video bi baaxee rek yi nga tegal ñu ko. par exemple Israël Sénégal ñun ñëpp xam nañ ni ñu ko ni ñu ko bët bi ngay xoolee donc suy def genre recherche mel nii loolu day day gën a day dana changé du tax mu changé mais dina bokk si li nga xam ne mën a changé image bi Sénégalais yi par rapport ak Israël te suñ koy continuer def action mel nii dina doon loo xam ne lu baax la euh, pour gën a defar defar diggante yi. nit ki loo ko loo leen contrante contrante loo ko bañ bañ loo ko bañ bañ su defee rafet na rafet na loo rafet ku gis la na refet na. lii nii muy acte bi acte la parce que fekk ñoo xam ne ay néew doole la amuñu doole mu doon ay handicapé ñi ay ay am feebar ñii ñoo xam ne wér nañ mais amuñu la yanu jox leen tabaski loolu baax la. voilà Nafi comme ni niñ ko gisee nii ça c'est pour euh, montrer une autre image d'Israël comme ni ma ko waxee ci commencement bi ñëpp euh, benn bët lañ leen di xoolee mooy parti guerre boobu noonu ñu doon def ak waa Palestine te boo xoolee loolu c'est une histoire ancienne ndax ay problème mu suuf moo leen doon joteele donc baax na tey jii ñu fësal seen côté humanisme ndax ñoom chaque euh, année ambassadeur Israël yi yi nekk fii ci Sénégal dañuy faral di joxe ay don wu xar di ko jagleel ñooñu nga xamante ne seen loxo jotul toujours seen ginnaaw di ko perpétuer nag chaque année yamuñu dong ci tabaski euh, bu tamxarit bi di jub si aussi noonu la ñuy def di rey ay nag jël ndawali di ko séddale ci dëkkuwaay bu koor jotee tamit noonu la ñuy def di jël ay don di ko may néew di doole je pense que Mohamed geste moom rombul lii. dafay gën a raffermir lien yi exactement parce que ñun ñëpp benn lañ. tey jii nit ku nit koo gis rek am na benn côté boo xam ni yàlla may na ko fa mm-hmm. je pense que euh, lii waru fi jeex lii leçon la pour yeneen dëkk yi tamit jéem a booloo ñoom ñëpp nekk benn ma leen di ñaanal rek euh, buñ ko bu ñu mënee cent ren nañu mën deux cent déwén voilà amin amin xam naa du ñàkk euh, ñu euh, gën a gise mhm. le lundi lu ma neex lu ma saf lay doon na fi ah. ginnaaw bugaan man la Ah, ah, ginnaaw bugaan yow la man la paasan nag du ñàkk ñu wutal ko rubrique fii mu toog di chronique mën na ne de <laughs> waaw paasan foog mu toog di wax xalaatam du noonu ayca léegi dañ dem xool yi partenaires yi lu temps que ñuy dellusi ci deuxième partie bu rendez-vous bi